Moustapha ma namoon nañ mais maa leen raw trop namoon nañ la trop trop trop trop maa leen raw trop trop trop trop trop nga toog France rek bañ bañ a ñibbisi waaw gis nga dama doon làkkatu rek mais ñibbisi waat naa nag franchement ñibbisi naa et Sénégal m'avait trop trop manqué mais gis nañ la ci TikTok bi ak yooyu noonu say partenaire ay yooyu noonu femme dafa mel ni toogoo de <laughs> non toogu ma TikTok, moi, mais TikTok, je viens de découvrir, en fait. Et franchement, c'est super passionnant. Et tu sais, en France, c'est payé, donc du coup, euh, on le fait euh, avec plaisir. <laughs> mais euh, alors, euh, moi, dama ñëw je suis ici lancement officiel de la nouvelle série qui cartonne muy Vautour très prochainement on parlera un peu plus de ma vie de mes activités professionnelles dinañ ci gën a développer incha allah oui avec plaisir. je passerai vous voir avec plaisir. Inch'Allah. Sénégal. Magnifique, moi, magnifique, magnifique. Et j'annonce officiellement que je rejoins l'équipe Yvonne Prod. Donc très bientôt, vous allez me voir dans la troisième saison de Infidèle. Alors, est-ce que je serai infidèle ou est-ce que je serai très très fidèle Vous le saurez très vite, Inch'Allah. Ah. Hmm. Luma le Nourou, Lala le Nourou, bon personnage là, mon incarné à la perfection. infidèle ñoo ñuul de. <laughs> doo infidèle. Ah. mokk alpulaar bu infidèle. da ngay sage da ngay sage. Ah oui bu la kenn nax nag bu nangu kenn nax la. je pas encore je sais pas encore nu ma fay nu may nu may nekk mais. non du ma leen ko wax li may nekk mais très vite vous allez découvrir incha kenn nax ci série bi nag. non du ma ministre yooyu yëpp daw leen. non. yooyu frege ñaante wu ma. <laughs> merci je vous en prie merci à vous. promis je le ferai incha allah. Hello.